njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay dugg ci combat boo xamante ni du ñu wax ne du ci am ndam waaye nag ndam la daal du gaaw wala du yomb ci moom ndax nag dafa bëgg Sénégal gi nekk réew moo xamante ni dina mel ni yi maanaam réew moo xam ne dafay set wecci ba tax samedi ji nga ne moom la ñu génn journal bii di réew mi quotidien l'observateur Vox Populi ak Sud Quotidien mu ñu xamalaan ñu journée de lancement njiitu réew mi di Macky Sall daat na lancé samedi ji nga xam ne moom la ñu génn bëri na ay kilifa di ministre di ay chef religieux yoo xamante ni mbir moomee nag nañ siy dugal seen loxo Aly Ngouille Ndiaye ma nga woon ca Linguère Talla Sylla moom nag la mu xamle nee na diwaanu Thiès daal mobilisation ba demee wutoon noonu ndax nag ñi nga xam ne ñooy ASC yi di ODCAV ñooñu nag dañu leen see waroon a boole kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñi yëngatu ci lu jëm ci mbirum tonni mbalit ñoom nag daan nañuy kontaan lool ci bëccëg bi nga xam ne moom lañ doon amal journée de lancement jëm ci wàllum nettoiement ñoom nag mi daal xeexum la yéen a kaay gii de la ne moom lañ doon yëkkati jëm ci wàllum set setal nee na diine nag maanaam set wecci daf caa daa di bokk ba tey moom mi ngi jàppale nag ñi nga xamante ni daal dugal nañ seen loxo ci mbir moomu yéen gii de laas mu ñu xamal lan ñu njiitu mi di président Macky Sall moom nag mbir mi daal dafa mel nii kafu ci réewu ci ndax nag nee na daal loi bi nañu ko yëkkati ba mu kawee daan ko lal ko ci ndoddul ñi nga xamante ni daal ñoo lànk kandaare ba a wàccoo ak li nga xam ne moom la yoon wax ñiy sànni sachet plastique yi ci mbedd mi ñooñee tamit njiitu réew mi di président Macky Sall bëgg naa jël ay daal daan di ko lal ci seenu ndodd journal bi di réew mi quotidien ñu fekk fa Pape Gorgui Ndong moom nag la mu xamle nee na daal dafa bëgg daal prix chef de l'État jëm ci wàllum set daal moom nag mu daal di koy gagné maanaam commune am bokk ci commune yi gën a set ci Sénégal yéenekaay gii di L'As mu ñu xamal lañu nag bëccëg bi nga xamante ni daal moom lañ doon amal samedi ji nga xam ne moom la ñu génn tës daal na say am ndax fi nga xamante ni fa la njiitu réew mi di Macky Sall fekk baax di wa nag ñoom génn ñu benn la ko waral nag dañoo boycotté ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di président Macky Sall source a mu ñu xamal naa ñu njiitu réew mi di Macky bu jàppee na nag maanaam Sénégal dina seet wecci ma ngi nax boppam ndax ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci mbirum tonni mbalit ñooñu nag état bu Sénégal da leen a amee lu toll ci quatre milliards te ba léegi ni fayegu leen ko te ñooñu nag saa su nekk mën nañoo dem ci li nga xam ne maanaam mooy ab gréwa journal bii di réew mi ko ñu fekk fa maître ma soxna kan moom nag mu daal di jiite ak kuréel goo xamante ni dafay ñaxtul ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi daan nay wax ne Sénélec dafa am caisse noire ngir nag daal di mën a doxal li nga xam ne mooy ministère bi ñu dénk wàllum pétrole te loole nag tegiwul fenn moom maître ma soxna kan la mu xam le nee na état bu Sénégal maanaam argument yi nga xamante ni daan nañ koy wax ci lu jëm ci yokk gi nga xam ne yokk nañ ko courant bi loole nag ay wax nax saxandang la ay caaxaan la ay nax askan wi la ndax li nga xam ne moo am ci biir Sénélec lépp ak ministère bi ñu dénk wàllum pétrole dañu ko nëbb ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal ndax scandale moo fa am te fu la nag maanaam mooy jaay Dakar am na loo xam ne askan wi ñoom seen bopp ñoo ko a lànkal fajal seen bopp kàddu yi maître ma soxna kan la ma ngi gi di réew mi quotidien journal bi dikk ci Aminata Touré mi nga xam ne daan nañ laaj ci lu jëm ci ñetteelu mandat bi ak tontu bi si njiit réew mi di Macky Sall di tontu la mu xam ne daal nee na mbiru ñetteelu mandat bi ma ngi sunu ginnaaw Macky Sall wax na ci li mu ciy wax journaliste laaj ko na ko Aminata ndax yow 2024 candidat ngay doon la mu xam ne nag nee na daal bu dat ba jotee boobule laaj xamante ni daan nañ ko kay laaj journal bi ñu fekk fa Ousmane Sonko moom nag mu doon màggal juróom benneelu at boo xam ne def na ko ci langue politique gi waaye nag la mu xam ne dala nee na moom lañ gën a diaboliser ci om politique yi ndax nag am na ñoo xam ne dañoo yabaloon ay nit ñu dem ci kër kilifa diine yi ngir jaxase leen ak mooma waaye nag moom Ousmane sonk dala li am ba des journal bi nee na terrain Sacré-Cœur 3 ay ñoñam ñoo fa dajaloo woon doon màggal nag seen juróom benneelu at gi nga ne am nañ ko ci langue politique gi daat nañuy wax ne Macky Sall 2024 nekk candidat ak mu ñàkk nekk candidat la ñu yamale waaye nag dina jóge ci réew mi journal bi di Sud Quotidien mu ñu xamalaan ñu Ousmane Sonko jamono ji 2024 lay waajal yéen kaay gi dala turbine dikkal ñu ci mbir mu doy waar moo xamante ni sa Cees la xewe benn soxna boo xam ne moom nag dafa daal di jur ay seex waaye nag dafa mujjee ñàkk bakkanam ndax nag dafa nekkoon ci ab post de santé ñu war koo jël yóbbu ko rawale ko ci hôpital régional bu Cees waaye nag amuñu ab ambulance oto la ñu mujjoon a jël oto ba sax dafa mujj paana soxna sa mujj daal di ñàkk askanam yéen a kaay gii di laas mu daan ñu dikkal nag ci Iran gi nga xamante ni ñoom daal nee nañu danañu daal di fay ci Amérique ndax fan yi ñu génn dafa am benn général Iran ñee boo xam ne dañu ko rey Donald Trump daan nag wax ne moom moo def lu ni mel tax na waa Iran jamono ji nee nañu daal pare nañ ngir teg quarante milliards ci taabal ji ndax képp koo xam ne rayal na leen njiitu réewum Amérique yéen a kaay gii di libération dikkal ñu ci benn xale bu jigéen boo xam ne ñaari at kese dong la am di wuyoo si turu Ndiaye Guèye ca diwaanu Mbour moom nag dañu ko daal di rendi ndax ab faatu am na juróomi nit ñoo xam ne teg nañ leen loxo ca wàll woowu ndax juróomi nit ñooñee kenn si ñoom daal dafa amoon ak jafe-jafe ak waajuru xale bu jigéen boobu ñu faata journal bii di sunu làmb ñu fekk fa Eumeu Sène moom nag la mu xamle nee na Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 loolee combat dëggantaan la moom Eumeu Sène ba tey ci biir journal bi la xam xamle nee na combat boobee nag su taxawee combat am lay doon te booba dina fexe ba Boy ñaa 2 daan ki nga xam ne mooy Balla Gaye numéro 2 ñu laaj ko ci biir journal bi na ko jamono ji yan mbër ngay xaara nee na nag Tapha Tine Lac de Guiers numéro 2 ak Bombardier ñooñu ñëpp daal ay adversaire am lañ